waaye moom dafa am particularité sox suñuy wax Khoudia Badiane lu jiitu suñu juddu moo si woon lool daan tëgg làmb ju mag fii ci diggu bi bayal bi fi mu doon tëggee làmb ji moom lañ daan wax bayalu Khoudia Badiane loolu moo indi turu quartier bi waaye ci administration ñun ci Randoulène Nord la ñu bokk ay quartier Aiglon yii yëpp amul ay Mali Kayre rek yii yëpp amul quartier Randoulène Nord moo am ci administration bi di un grand quartier de Thiès na fii kër gi maam usmaan géey moo ko samp di maamu Cheikh njaay mii di góor gu baax di taalibi Serigne Touba bu baax fat ay boroom kër yoo xam ni tey seeni sët sëtaat ñu ngi ci biir dëkk bi moo leen dalal fii ba jamono méttee moo sampoon fii ñépp di fi root kon ñu ñëwee tey tànt fii ci buntu këram delloo nañu njukkal parce que dem nañu si ku ko moom ñu jox ko mu teeruñu tag tagal gan yi teral leen fii ci sama ndeyjoor ñaari jigéen ñoo jëkk nekk conseil municipal ci municipal ci Thiès fii ci tàngu Senghor aju faatu baro ak aju faat ngay kon su fi jigéen ñëwee seet si war nañ ko yebal mu dem kër aja faatu gay bint jibril jigal dem siyaare ji ko xam ni fii këru cosaan la ci politique ci diggu bayal kon góor baax na jigéen baax na yéen jigéen ñii buri mi wax na ma ni ma ndooye doomu ndeyam la ah loolu nañ ko jàpp amul xaajale amul seen buri dafa jël doomu ndeyam ànd ak moom ñu woote ci turu bayal buri moo jiitu moo woote ndooye doomu ndeyam la ñoom nañu ànd liggéey ñun nag wax naa ak Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye lii position mooy sama position xamuñu démagogie xamuñu populisme xamuñu caaxaan xamuñu folklore même art bi buñ koy def dañ koy teg ci cadre scientifique lépp lu ànd ak bombax di nekk am ma riir ñun yëkkatiwuñu li nu yëkkati mooy lu soxal suñu gox bi lu développer population yi li nu soxal suñu koñ bi mooy lu mën a fexe ba xale yi mën a jàng njàng mu aw yoon li ñu soxla ci suñu koñ bi mooy ñu fexe ba xale yi am métier. Mm-hmm. li ñu soxla ci suñu koñ bi mooy ñu fexe ba jigéen ñi am autonomie économique et financière mën a toppatoo seen njaboot ak seen i boroom kër. ba ñu waxee ni dañuy woo ASC bi pour mu wax nee woon naa bu ñuy woo président ASC parce que loolu ci démagogie la association yëpp yi nekk ci Sénégal dañ leen a tere ñuy def yu fi mbiri politique. kon président ASC warul la ñëw ci woote politique di fi jël kàddu ci turu politique parce que ASC bi sensibilité politique yu bari ñu nga fa te loolu mën naa indi jafe-jafe dama leen ni woon seet leen bépp jeune bu bokk ci ASC bi te bëgg a wax en tant que jeune mu wax mais nañuy bu ñuy bañ a dugg ci ay engagement yoo xam ni su ëllëgee dañ naan waa Bayal ñoo waxoon leete defuñu ko nañu am xaajee ak seen parce que ñun mag lañu euh, jàng nañu dox nañu xam nañu lu ñu wax am na fu ñu ko teg foofu ñu ko teg nag lañu bëgg ni nii jàppale ñu ci groupement yu jigéen yi fi nekk Adja ñu ngi nii jaayante yow dañoo jël ngor teg ko parce que fii gisuma lu dul ca campagne ba El Malick ñoo fi meeting fii lu weesu loolu yàgg na meeting amul fii ci Bayal kon tey soo fi ñëwee tey waa bayal teeru la am na lu rëy ci waa bayal ñu may la lu mel ni kon dañ la koo jël cërale la ko jox la ko jàpp kook sa fukki loxo soo ko jàppeeg sa fukki loxo doo ko rëccu koñ bi nag ay mag a ngi fi ay mukallaf a ngi fi ay góor a ngi fi ay jigéen a ngi fi su fi ajatike ajatike njaay mi demee lañ leen dajaloo ñu toog ñu waxtaan xaajaloo bi xajul ci bayal groupement jigéen yi di def bale bi laa ni nañ ko def benn bale ñoom ñëm nañu bokk ndey bokk baay àndandoo xàccendoo dóorandoo xaajaloo bi amul solo politique nag fi nu jëm mooy kii day wut ndam kan lay wutal ndam président Macky Sall président Macky Sall mi mu wutal ndam lii xew ci dëkk bi bokk ca beneen parti ba pare ñëw yoxoo suñu dugg ñu lu ñu nas nga déglu ko soo demee di ko nettali ak di saboté ka jaxase dañu ni loolu du am fii ci bayal moom dinañ ci xar suñu tànk tubéy ku mu neex nga bokk ci beneen parti nga dem ca sa parti nga toog fa ñun lii ñu yore xam nañu Thiès ñaata nit ñoo fi inscrit ci liste xam nañu ñaata nit ñooy wote dañoo bëgg bis bu ñu ca àggee waa Bayal bureau de centre de vote bu ñuy wote waxuma bureau de vote centre de vote bu ñu mën a wote muy Mali Kayre muy Iba Katiba dinañu fa indi résultat boo xam ne bii moom mii tax ñu ñëw dajale dajale fii dina xam ni waa Bayal liggéeyal nañ ko loolu nag processus la tey la dal la xel la xam la diisoo la waxtaan la nañu respectante ñu doxal ko ci yoon incha allah li ñu bëgg ñu am ko allahuma salli ala sayyidina l'ensemble des femmes du quartier vous manifeste toute, toute sa reconnaissance pour l'intérêt et la bienveillance dont vous faites preuve à leur égard chère madame Deitiké nous tenons à vous signifier que nous sommes un quartier dynamique qui aspire à son développement tout en ne négligeant pas l'aspect environnemental, d'où les séances de cette cétale que nous organisons, que, que nous organisons deux fois par semaine avec nos propres moyens. Chacune de ces femmes, chacune de ces femmes ici, ici a un projet de développement. Moi qui vous parle, J'élève des poulets de chair, d'autres sont des commerçantes, et d'autres des couturières, et d'autres des coiffeuses, etc. Nous savons l'intérêt que vous... Madame, nous que vous portez pour les femmes dynamiques comme nous. Et nous savons aussi que, que votre visite d'aujourd'hui sera la marque d'une ère nouvelle pour nous et pour nos projets. je vous remercie madame Leyti Ndiaye. waar comme ni fi ñi fi jiitu bayee seen waar. ñu dox ci rek ci massifier le parti. ku nekk xam ne bi APR juddoo yàggul. waaye def na fi ay jéego. waaye nag Thiès bokk ci dëkk yi nga xam ne xaw na diffisil tuuti. parce que nag kuy wax dëgg da ngay xam ne que ne Thiès. war nañu gën a góorlu pour jëm ci APR waaye nag duñ leen la rek góorgóorlu dañ leen di fekk fi ngeen toog ñëw waxtaan ak yéen convaincre leen jël suñu ay mbokk ak suñu ay xarit suñu ay àndandoo ñu bokk ci loolu je pense que euh, ki tax ñu di ko def ku ko jar la mooy kan mooy le président Macky ndax nag dafa am vision te njiit vision def ci baax bi mu xoolee xool li mu xool yépp wër Sénégal dafa ne yoonu yokkute ñu wax mu ni la plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent nag ku nekk ngi ci biir li ngeen doon wax yépp mi ngi ci biir waaye dafa commencé ci gox yi ndax nag euh, développement da nga koy xalaat globalement li ñuy wax waaye danga koy xalaat jë jóge ko ci terroir bi mu monté ci territoire yi loolu la président wax ngeen gis ak trois de la décentralisation li mu wax dem leen ci base bi ngeen liggéey au lieu ngeen di wàcc nii bu ñu leen jógee ci base bu mu yéeg bu ñu tasee somme bi mooy def développement jeex na développement ci gox yi lay commencé gox gox gox gox somme gox yi mooy nation bi mooy état bi donc mooy le Sénégal loolu nag di Sénégal émergent bu nga xam ne léegi waxatuñu beneen politique moom mooy référence te nag ku ne président Sénégal émergent wax la président Macky Sall ndax moo ko xalaat yéwén ne ko askanam ngeen gis descente yi muy descendre ci biir euh, région yi di ko xalaat nit ñaa ngi ciy wax nag lu leen neex waaye moom xam na fi mu jëm ñi ànd ak moom xam nañ fi mu jëm ma leen di ñaan ci loolu ngeen dimbale ko ndimbal bi jaar ci ñun dimbale ko mooy lan gën ko dooleel jox ko cees waaye jox leen ko bayal d'abord koo dimbale mu dimbale la kon dimbale leen ko kooku dafa di ku jara dimbale ndax gis naa ci moom ay lu nga xam ne nit ku dul fàtte koo xamoon démb quelque que soit fi nga toll c'est important fu mu la gis ak lu mu yàgg-yàgg dana jaar sa tur dana la nuyu te ñun suñ société dafa laaj considération koo considéré wul la considéré na nit ñi yéene na nit ñi kon waaye kooku kay nañ ko jàppale bu dëgëree ñun ñi ñu dëgër ngeen dëgër mooy lan mooy ñu développé man nag ñëw naa fi bi ma fi ñëwee dafa naa ne yàggul su ma jàppee c'est le 29 mai ñëw bi mooy confirmer sama appartenance ak décision bi ma jël pour dimbale la président Macky sàll ci Thiès ak dimbale sama gox loolu bi ma ko defee le 20 mai defe naa ne bayaal 29 mai bayaal ñu ci jàppoon ngeen. ñëwoon ngeen ànd ak buri ñëw taxaw bu baax ci tund ba ca ña ko feesal ci ngeen bokk kon maa ngi leen di gërëm di leen sant. boobu nag dafa amoon lu ma wax woon dama ne leen woon dama fas yéen di ànd ak couche bi yëpp mooy jeunesse bi di femmes yi. di ñi les moins jeunes parce que bëgguma neen màggat les moins jeunes laa leen di tudd ñu liggéey gox bi loolu nag dafa am accompagnement bu mu ànd ma njëkk a ko commencé nag ca cité Ousmane Ngom Maguette Thiam wax na ko léegi nee na cité Ousmane ma som la fii randu leen la wax na dëgg parce que dafa am découpage administratif bu xam ne ne dafa am te kon euh, cité Ousmane Ngom dinañ ko boole ci som ci loolu ma ne woon dinañ jàppale jeunesse yi dinañ jàppale femmes muy processus dama ñëw ak programme ma doon ko commencé rek foofu njëkke naa bi ñuy defee vacances citoyennes yi le lendemain bi nga xam ne lancé nañu ko man tam dama ñëw lancé sama bos ca gox ba ñu bale def la ñuy defanteeg ñoom renforcer capacité jigéen ña fa nekk ñu jóge sañu dem ci jeunesse bi ku nekk xam na nawetaan ak ni mu amee solo ci suñu biir jeunesse. waaw ñu defanteek ñoom teraanga ay teraanga teraanga rek lañ koy tuddee mais dañ doon màndargaal suñu volonté bi nga am ne bi suñu pësteef bi ñu am pour ànd ak euh, euh, jeunesse bi loolu yëpp ci dimbale jeunesse bi la parce que dama leen dox wax ne leen jeunesse dafa di lu am importance dañuy jàng ba pare comme ni sëñ Xaadim wax léegi duñu am fu ñu jëm. loolu yëpp ay réflexion la dañuy jàng ba pare euh, euh, di toog yenn saa yi te président Macky Sall dafa am kóolte gu mu am ci ñoom am lu mu leen jagleel ñu war def ba mu egg ci ñoom loolu ci rôle yi ñuy joué ci la bokk ma dem nag ci jigéen ñi jigéen ñi man li ma gis Thiès dama ko gisul ci dëkk yu bari ndax quartier boo dem fekk nga jigéen ñi am na lu ñu nekk ñu ngi yëngatu ci dara mais kii yëngatu ci dara kooku neewul yàcc kooku moo neex a dimbale kon maag jigéen ñi dama fam fas yéene am ak ñoom benn pacte ak góor waaye pacte de confiance pacte de confiance bu nga xam ne dañu may gëm ma gëm leen ñu jàppante nag liggéey ndax li ma gis ñu ngi ci aga gi ñu ngi ci yeneen ak yeneen koo ci gis bu xëyee suba am na lu muy def dama dugg ci avec yi xool ni ñuy defee may yéemu ci yàlla yéemu bu dara mooy tax yéen li ngay xeeb ci biti cent franc deux cent ndekete am na lu bari lu muy faj ci biir kër yi ndax seen organisation ndax ni ngeen nekkee mais nag loolu dafa laaj renforcement te renforcement bi ki ko mën mooy le président Macky Sall jàppale leen ko mu jàppale leen. en tout cas fas naa yéene man ci cadre boobu ñëw continuer di liggéey ak yéen ci li ma xam muy développement maa ngi ciy waxtaan ak élage Hadj Maguette keroog ci problème développement dama jàng lu bare ci moom ndax di xam di waxtaan ak ñu mel ne moom dafay enrichir nit ñu waxtaan téléphone mu am ay idées yu bari yu nga xam ne que ne jox na ma ko am na naam yoo xam ne xamoon nag waaye am na yu bari lu ma jàngaat ci Thiès te dara ndusuma di ko wax parce que àddina dollante la donc maa ngi koy gërëm di ko sant ci loolu di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant di wax ne seen doléance yëpp dégg naa ko tendre ngeen ma la mais tendre naa leen la mais euh, jàppante moo des te jàppante nañu sax ba pare donc ci loolu damay fas di wax ne duma digge waaye dégg naa lu baax li ngeen wax kon yal nañu yàlla may ba ñu fekkee def ko la ñuy wax ak ak dal ak tal ko en tout cas yéen a ngi sama xol maa ngi ñaan yàlla ni ngeen nekkee sama xol ma nekkee ko ci seen bos ma di leen gën dénkaat sama doom yi fi nekk muy ñoom buri moom mareem ak ñeneen ñi fi nekk di gërëm bu baax di sant sama goro bi ñu koy wax Bas Wade di gërëm waa këram yi di gërëm notable yi fi nekk yëpp di gërëm sama mbokk yi fa fekk ak ñi nekk ci biti di ñu ñaanal xale yi mag ñi ak ndaw bi ah Marème Diop présidente Mami Mbuub ñoom ñëpp ñi fi toog ñëpp ku lim juum jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaam.